Assalamualaikum, salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di ñëw ci benn vidéo bu gàtt rek ndax euh, diggante démb ak tey ñu ñuy interpellé bëri na trop ci situation bi ma lay wax ne boo nekkee ci parti wa ilaa nga gëm benn leader leader boobu nga gëm depuis 2014 bi mu sosee parti ba léegi musulaa wax dara loo xamante ni ci sa bët te mbir yi leer na ci leer ci waxtu wu jot la ngeen def ak taxawaay bi ngeen ci am wax na ko japp na ne bu ñu demee ba ne mois 2 mois mo ci dess tay ji confiance bi amon amoon ci moom dañ ko wara yok mé mais ko wañ kon may wax patriote yépp nañ focus ci li ñu dese te xam ne lu fi jar décourager wu wala dafi jar xastante wala dafi jar waxtante lu ñaaw amu fi ndax dara xewul ndax président Ousmane Sonko lu way di jaay ci projet bi bo gesso gis ni mo lu ko ëppale fuuf ndax lim ci ñak gisuma ben patriote bu ko ci ñak wa ila buñ ko doon mengalel moy ñi ci seen bakkan nga mëna wax ndax combat boo xamante ni ko yëkëti dañ la ci dakk sa liggéey góor yi ko andalo ñëkëti ñu ci bëree bëri tay ci daw nañ la bayila ta te bi ñu ñëw di la woo la dañoo bëgg a créer parti li leen waxon leer na gàntu nga leen gàntuwaat leen ñetteelu yoon ba ci leen wax ne dinaa nangu li ngeen ma wax mais man dama muntu duguntu ci mbir su ma duggee ci mbir damay dem bam jeex mais du bayyi te gis ngeen buñ ci duggé ba légui liñ ko ci tay ji bari sax Ousmane Sonko momu di wax ak yeen mu ngi ci bir kasso bi kon jàpp naa ne moom lu mu mën a muñ ñun war nañ ko mën a muñ li wolof di njaay di wax nag moo fi nekk kuy gunge borom biir buy daw bu dawul yow waroo daw kon ñun mbir yi leer na ci suñu bopp waruñoo yem ci Ousmane Sonko namm naa la dañ cee war a boole Ousmane Sonko wóolu naa la te xam ne ñun benn candidat lañu am seul unique candidat muy président Ousmane Sonko te jàpp nañ ne aspect juridique bi avocat yi ñoo ko yor te wóolu nañ leen liñ ci war a def lépp dinañ ko def. kon nag ñu avocat yi amee discipline ba li ñu war a def ñu koy def heure bu ñu leen rakklee fee ñu dem dugal seen recours ñun militants seen partisans yi li ñu war mooy ñu remobiliser base bi wax ak ñoom te xam ne amut droit découragé ndax ndax ñu xalaatee suñu rakk yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan xalaat suñu rakk yi nga xamante tey jii nga tëdd ci lal hôpital yi mënatuñoo jóg xalaat suñu rakk nga xam ne ñàkk nañ ci seen bët xalaat suñu rakk yi nga xam ne ñàkk nañ seen loxo lu ñu doon def dañ ko war a yokk te xam ne rendez bi am ak Sénégal yi mooy 2024 bi jërëfi système bi fi nekk teg fi beneen système boo xamante ni day ñëw respecté bëgg-bëgg Sénégal yi taxaw ci bëgg-bëgg Sénégal yi loolu nag mënoo koo bëgg boole ko wax yu sew kon jàpp naa Sonko mus sa jël boppam teg ko ne dul man dara du baax ndax biñ ne Pastef dañoo war a retirer ay fiches de parrainage yu bëri gis nga Ousmane Sonko dafa yebal cinq personnes yu bokk ci parti ne leen dem leen nga retirer ay fiches de parrainage bi waxtu euh, wut ay fi wati wuti parrainage jotee daf leen orienté ne dem leen ngeen parrainel fiche cent onze bi kon noonu mu ko doon defee démb barki démb bu leen jàpp ne xalaatul épresse yi a xalaat mais nañ yàlla suñu borom man maa ko waxati leen ko yoruma kàddu parti bi mais mën naa ko waat ci yàlla Ousmane bi te lu gëm ci projet bi xam na ko te dina ko def bu doon maslaa ak négocier mooy tax mu wanteer projet bi heure yi waxatuñ ko li Macky Sall bëgg def na ko bu yàgg mais du négocier ci ndoddu Sénégal yi mukk te lépp lu intérêt Sénégal yi xam na ko te dina ko def kon maa ngi sàkku sama mbokk patriote yi ak sama mbokk yi ñu gën a am discipline te gën a respecté ordre parti bi te xam ne kilifa yi ngeen jiital ay kilifa yu mat kilifa lañ te lépp lu waxtu def ko jot dinañ ko def di profité ci occasion bi nag di rendre hommage maître Khoureychi si baax te xam ne jàmbaar nit nag ci liggéeyam ci lay defee accident démb xëy na juum na euh, juumte googu nañ ko ko nangul mais nag am maa di ko jéem a xas wala di ko jéem gi ay toog loolu ànduma ci te duma ci ànd ba àdduna tukki ndax nañ fàttaliku ne doonte démb ak barki démb la doon nañu ko def lu baax kon ma ngi sant ñep di gërëm ñep assalamu alaykum wa rahmatulah. mais señ bi man mii dama euh, dugg dem ci panel patrul bari di wax sax dem ci décourager bobu ngay wax noonu nan jottu ñuy jël suñu carte d'identité ñi dem élection ne suñu demee dañuy dañuy dañuy ki parce que fichier bi. lolu heureul gënu ko reuy hmm. ndax fichier bobu ñuy wax ci liñ demee élection législatif lapp ci Macky Sall lapp yu métti. ci liñ demee élection locale lapp ci Macky Sall lapp yu métti ak jël dina demee no xamanteni sacc sàcc bi ci manat dara nañ gën remobiliser wu dem jëri carte électorale élection yii di ñëw amuñ droit di ci wane benn xar kanamu décoration lépp lu ñu def dañ ko war a yokk ndax doonatul voté ngir sens président de la république mais voté ngir sens ab système la ndax système bi fi nekk bu ñu ci kaso bi dootuñ génnati hmm. système bi fi nekk ko bàyyi mu continuer mooy président Ousmane Sonko dootul génnati ci kaso bi système bi fi nekk bu ñu ko bàyyi mu continuer mooy suñu rakk yi tëdd ci lal hôpital yi dootuñ wérati ndax tey jii gis ngeen yéen yéen a dajale seen i seen i juróomi dërëm la waroon gis nga état ni mu ni mu ni mu ni mu génn ci askanu Sénégal bi di xool ay nit di leen privilégié leen jox yeneen kon nag yooyu jàpp naa ne naan ay élection yi fiise bi baaxul ay fiise deux mille na nekk fiise deux mille deux li wóor ba wóor mooy nañ jëli ay carte d'identité yi dem vote ji bu ñu votee pare taxaw sécuriser ko ndax élection yi locale législative jàll Touba la fekk hmm. ordre bi ñu joxoon mooy ko voté bul génn sa biir ah, fa lañ taxaw xaar euh, résultat yi ba mu génn hmm. ñu gagné leen fii cent mille cent vingt mille fois ñoom ñu am trente mille trente mille fois kon jàpp naa ne élection présidentielle yi moo ko ëpp li ñu war daal mooy ni département Mbacké assuré ni dañ am 90 pour cent mhm. na département yëpp assuré booba midi une ñu ne président Ousmane Sonko jël na réew mi kon li ñuy digal militants yeeg sympathisants yëpp mooy ñu nekk ci terrain nañ nekk ci terrain bi te bañ ko boole wax